asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk topp di ñu bàyyi xel ala kulli ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ndokkeel di leen jaajëfal ci topp gën ñu topp di ñaan suñu borom subhaanahu wa mu boole ñu defal ñu yiw àdduna ak wow alaaxira ala kulli aalin seen jotaayu asraar ki koy defal seen mbokk Serigne Mamour Sylla ci Asraar tey ñëw ak yéen ci jotaay bu am solo boo xam ni dañ leen jox sekkare kaaraange bu màgg waaw wala bu gën a màgg sax <laughs> ala kulli àll sekkare kaaraange bu gën a màgg boo xam ni sekkare la waaw kaaraange bi maanaam tey li ma ci neex mooy li tax euh, li ma koy joxee sama xol di gën a feex mooy dafa bokk ci samay sekkare yoo xam ne yàlla dafa ma ko tawfiixale muy aqiiqa ci samay sekkare ala kulli àll nekk nag bu wér bu tënku ci asaar ala te it dañ ko leeral te it eh, xam naa ne daal kaaraange amut lu ko ci mën wala ko leeral waaw yi moom wax dëgg yàlla te it yéen ñi ma koy wax leen laay sàkku ci mooy ngeen dolli ma ñaan waaw ngeen dolli ma ñaan rek wala kulli xaal loolu rek lay sàkku ci yéen te it képp ko jëfandikoo saa defal la ci taw tawféex ba la ci yéene yàlla def nga gis ci lu kawe kawe sa njort wala kulli xaalin serro bi nag ñu leeral ko loolu lañ tënk doon ci loqatul arabiya حجاب عظيم جدا على كل حال جدا جدا جدا جدا لدفع كيد الجن وكيد الانت والاعداء والسر كل سر والسر حين والسر حاتل اذا عزل الله اكبر كاراجي جمجني لول لول نك على كل حال حجاب نعم. جمج لول تجنك فخم جن <laughs> الله اكبر waaw ci jañ pexem ginne mën a jañ pexem ginne waaye yëmut ci loolu waaye wa kaydil insi ak pexem nit doomu aadama wal aada ak am noon moo xam noon bi jinne la wala noon ba di nit moom ci mën a doon rek lii da koy day jañ ay pexem incha allah ak it képp ku amu ay wa sarri kulli sarrin waaw képp ku am ay lépp lu am ay rek incha allahu taala boo jëfandikoo sirru bi yàlla mën na laa musal ci seenu ay ñoom ñooñu ala kulli almi ak it ayu bët ak ayu làmmeñ tënk ci ayu bët waaye ak ayu bët ak yëpp ay rek ala kulli al ci tënk ak it ay iñaan ba pare di jëfandikoo iñaanam ni ko alxuraan waxee wa min charri xaasidin ida hasad <laughs> yàlla ci yàlla musal mooy ki nag ki iñaan ba pare di jëfandikoo iñaanam yàlla nañ ci yàlla musal ala kulli halin daal secret yu bu màgg la ala daal ñu ñëw ci leeral leen sirru bi ci dëgg-dëgg wala loolu nag ñu ngi ñaan ci képp koo xam ne gan nga ci jataay bii di Firdawsi Asrar nga abone te xam ni lii sunu yéene mooy di laayu biir ak yéen ci xam-xamu asrar leen jox secret yu wóor yoo xam ne day tënk ci asrar muy secret yoo xam ni boo ko doon jox wala boo ko doon gëstu ji mën nga mën nga cee joxe ay junni yu bëree bëri ñu gëstu ko ba pare wala yàlla wët yàlla taw ko ñu koy jox ci loo xam ni sàkkoon ci yéen lu dul ak ñaan ala kulli àll kon na ngeen abonné te aimé vidéo yi bu fekkente ni amal na leen njariñ ala kulli àll waaw kon ñoo ngeen ci leeral incha allahu taala secret bi nag dafa tënku ci ci ñeent saar yi muy fatiha ak ixlaas ak falaxi ak naas ala kulli àll allahu lépp di alquran nag waaye nag moom laa tënku bu ne ñu leeral leen ni koy ni koy jëfandikoo ni koy binde da ngay njëkk a bind suratul fatiha muy fàttali kitaab ba'da kulli aaya nga bind nga dugal ci lii hasbiyallahu min kulli shay'in allahu akbar hasbiyallahu min kulli shay'in ba'da kulli aaya ci suratul fatiha nga teg fatiha ba bee bindaat suratul ixlaas bu neex na nga def ko ci même fooy ixlaas nga bind ko ba aay yu bëriwul aaya bu ne nga dugal ci allahu yaxlibu kulla shay'in allahu yaxlibu kulli shay'in allahu akbar mbokk yi lii secret la de secret bu màgg a ngi nii ah ay bu ne ci ixlaas nga bind ci allahu yaxlibu kulli shay'in xool loolu loolu donc day wéttali day wéttali ixlaas am ixlaas saar la boo xam ne tawhid la waaye allahu yaxlibu kulli shay'in day dëggal tawhid ji donc ma allahu yaxlibu kulli shay'in loolu moom <laughs> moo tënk lépp mooy yàlla moom moo moon lépp lépp lu am yàlla ko not allahu akbar ah, secret ngi nii de secret bu mag ngi ni lii lii rek daa doy tëkk ci kaaraange ndax boo xoolee eh, hasbi allahu min kulli shay'in allahu yaxlib kulli shay'in wala yaqbi li amrillahi shay'un wala hawla wala quwwata illa billahi azim gi composé secret bii dama wax ni sama secret la ala kulli haal lii sama secret la de waaw ala loolu nag Sëñ Tuubaa indi na ko ci téereem ba ñëw Hisnul Abraar téere boobu nga xam ne dara mënu ko ci kaaraange waaw téere boobu boo xoolee eh, Sëñ Tuubaa indi na ci lii moo tax lii lu am solo la waaye nag ci seexa bi ñu ko joxee nii moom wax dëgg yàlla ñun la ko yàlla taw feex la sama secret moo tax képp koo xam ne yaa ngi koy ñi ngi ñi ngi yaa ngi ñuy topp ñu ubbi sunu xol yi la jox xam yow mi jël xam bi nga xasal sab xol <laughs> yow nga jariñu ci xam naa ne du yomb ndax benn leen li ñuy faral di wax muy mln yooyu donc am na ci ñoo xam ne yaakaar naa day jafe ci ñoom lool ndax seen xol bu xat wala ñu lay seetaan waaye barab bi ñu lay seetaanee sax mën nañ di ko signaler ngir bañ seen seen yeneen moroomi mbokki donga daara bañ cee jariñu wala mën nañoo ba a abonné ngir yéenewun seen bi jëm ko te moo ne kat fi la <laughs> loolu xatub xol la xatub xol googu nag ku ko def yow ci sa bopp yaa xat sa xatu eh, sa xol yaa ko sa bopp ba daanaka jariñu dana jafe ci yow waxuma laa ngay jariñe waaw nit ki moom saa yoo demee ba gis ni mënatoo jariñ rek yow xamal ne jariñu dana jafe ci yow lool allah kulli al kon su ko defee nag nga dal di bind nga bind ko nii ñu ko wax waaw gannaaw boo bindee ixlaas ixlaas nga def ci aaya mu ne nga dugal ci allahu yaxalibu kulli sayin soo paree nga doog a bindaat suratul falaq aaya bu ne ba'da kulli aaya fii suratul falaq tatta nga bind wala yaqifu li amrillahi sayun allahu akbar la ilaha illa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah sayyiduna muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu wetal yàlla sirru bii day amul dara luy luy jigee ak njabar wala luy nuru lu xam-xam bu ñuul bu ban lépp ay alquran la waaye tam ak turu yàlla mu lu sell ñaan muy ñaan yoo xam da ngay yàlla wéetal gi wéetal yàlla donc war naa tax ci biir secret bi nit ku ne mën koo doyloo ba xam ni Euh, bu ko jëfandikoo dana am kaaraange ndax wétlu gi mu wétlu ko yàlla te yàlla ku wétali ko mu wétali la te ku yàlla wétali moom kenn du la ëpp kaaraange lii rek doy na sëkk ndax boo xoolee maanaam saar yi ñuy bind mu ñeent saar yi ak ni nga ciy dugalee faataak mbëri dance bi yàlla xam ne kulli say in lixlaas nga nga dugal ci allahu yaxle bi kulli say in boo digloo li muy wax rek maanaam boo koy wax sa xol day feex yow mi koy wax sax da ngay yëg ni yaa ci biir kaaraange yàlla gi allahu akbar falax yi nga dugal ci wala yaqifu li amrillahi sayun naasi bi mujj nag nga dugal ci wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim ñeenti saar yi moom ngay bind binde ko ci siixa bii ñu la wax nga dugale ko nii ñu ko nii ñu ko taftalee nga taftalee ko noonu bone nga dugal ci lii boo paree nga boole ak xaatim musallas bi xaatim musallas dañ indil bokk na nak ci ay secret man mi dama ci ndom ak juroom ñaari gaw go xamni lolu mom moom loolu xiwar rek ay tan jox ko do aadama juroom ñaari fatiha yi juroom ñaari fatiha yi ñi ko xam-xam nañ ko waye amna juroom ñaari fatiha yi ta ma joxe ci tuti rek ci teng ci tuti ci juroom ñaari fatiha yi ndax boko la juroom ñaari fatiha yi fatiha bu ñëk bi moy fatiha bu and ak yakadu ben fatiha bi fatiha bu and ak wallaahi suma min naas ben fatiha bi fatiha bu and ak waradallahu ñentel fatiha di fatiha bu and ak wa qadimna ila ma amilu min hamil juróomeelu faatiha di faatiha bu ànd ak waqul ja àla baat la noonu lañ ko def ba juróom-ñaari faatiha yi ñëw booba na xaatim ba muy àndal murabba lay doon boo xam ni hasbi allahu min kulli sayin allahu yaxlibu kulli sayin wala yaxfil am la sayin wala xawla wala quwwata illa billah ci booba loolu lépp mu jàpp 6602 moo dem ca murabba ba allahu akbar boobu ndomba kaaraange moom <laughs> ndomba juróom-ñaari ga wooyu allahu akbar loolu lay kaaraange pire ngi noonu ala bii la ñu léegi nag bu li pare bi xaatim bi nga ko boo xam ne adat bi nag moo ci dem boo boolee tur yàlla yëpp mu yasbi allahu min kulli shay'in allahu yaxdi bi kulli shay'in wala yaxfi li amri allahi shay'un wala hawla wala quwwata illa billah ali asib boo xoolee loolu lépp adat bi daf lay jox 6602 moo dem ci xaatim musallas bi musallas bi moo nekk nii ci baytu xaalu musallas bi nag ci ngay dugal sa tuur yow mi ko yow mi wutul kaaraange wala kelee ñaan loolu bëgg kaaraange bëgg moslaay lii nga koy mi ngi koy bindal danga koy bindal ñaar nag benn bi mu sangoo ko waaw benn bi mu sangoo ko bu ma nee sangoo neuf jours moo gën beneen bi mu takk ko mën na ko def ndoom ak ñetti gaw allah kulli alin bokk doon ndoom ak juróom-ñaari gaw yi allah kulli alin kaaraange pire ngi nii lii daal képp koo ñam bu neex yàlla du doo ko bàyyi li may ñaan nag li ma leen sàkku ci yéen leen rek la muy ngeen abonné te ñaanal ma tey aimé vidéo yi tey yow mi nga xam ni wóor na la yaa ngi jariñu nga partage ko sa mbokkum donga daara moo xam ne dana jariñu ndax loolu mooy suñu yéene képp ku ci def loolu daal yàlla bu la kenn yàlla bu la a jariñu ci eh, serro yi ñuy joxe ndax suñu yéene mooy jariñante ak yéen yéen mbokki dong daara yi kon di leen koy tasaare ci seen mbokki dong daara te ubbi xol yi na ubbi xol mooy tax nga mën a jariñu borom borom xol a jariñu dara ci xam-xam ndax xolam bu xat moo koy lor kon yàlla nañ ci yàlla musal ubbi suñu xol defal ñi suñu xol tawféex ba bu ñuy joxe xam-xam wala ñu jël wala ñu jël xam-xam ñu yëg ci suñu xol mbégte moo xam ni day mel ni dañoo toog suñu mbokki dong daal ñu wër ñu ñuy wax ñu ñuy dégg mbégte moom la am bu ñuy wax yàlla na yàlla saxal ko euh, ci suñuy xol ala kulli haal bi kon daal tey dii lañu indiloon leen ñaanal jàmm ak tawféex leen dokkal ci waru koor yi rek di ñaan yàlla may ñu fekk ko at yu bëree bëri insha allahu taala jërë ngeen def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu